lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen ko yëral ma dooree ko ak journal yi di Vox Populi di dikk ak ñun ci travaux assises yi nga xam ne ndiki démb nag la jeex yëglekaay bi di ñu xamal nii gis nga gannaaw waxtaan bi nga xam ne daal nañ koy waxtaanee mbirum justice mën na la sept jours yoo xam ni daa ñu ngi ci dialogue national bi de Vox Populi nañu kon kay daal nañuy boucler li nga xam ne moom di travaux yi kon kay fi mu ne ni coow li ma ngay des ci njiiti réew yëpp nag nee na waa gis nga ministre de la justice bi di Ousmane Diagne ay kaddu de ne gis nga suñu système justice bii daañ ko gën a ñongal nag na leer de ndaxte gis nga ab justice bu tëddeewul jaaxal naay ah jàpp na justice boobu du justice de moo taxit gis nga fi ne nii toolatuñ ci période xam ne daal lañ koy tënk si kaddu kon koy jàpp de waaye gis nga bu dee Ba di président de la commission technique sur les résultats de la réforme jubbanti na gis nga 75 pour cent si ay sénégalais jàpp na juróom-ñaar fukk yi ak juróom ma ne la wóoluwul li nga xam ne mooy seen justice su réew te lii ab jafe-jafe la le quotidien dañu xamal nii gis nga assise si justice bii dama ne la am na si lu loo xam ni ba tey gaa ñi déggoowuñ ci de journal le quotidien dañu gis nga gaa dañoo d'accord si li nga xam ni moom moo wàññi pouvoir parquet bi loolu moom gaa d'accord nañ ci moom ñëpp a d'accord waaye dama la gis nga coow li coow li coow li assisaar yi ñoom xaaj yoog seen la de si teewaayu njiiti réew mii ma ne la si conseil supérieur de la magistrature dama ne fii la coow li nekk nag ndaxte ñii d'accord nañ ci ma ne la ñeneen ñi ànduñ ci waay kon kay moom président Bassirou Diomaye Faye fi mu ne nii moom mooy tànn de ndax coow li si moom la des di si du quotidien ne ko léegi may ma ma ñëw gannaaw réforme ak modernisation si mbirum justice ma ne jàppal ne ndiki démb moo nekkoon verdict des assises a xarkanam bu yees si mbirum yoon justice moo taxit gis nga Sud Quotidien nañu niki démb nag ci talaata yi ñeent fan si weeru juin jàppal ni daal lañuy ñu a taxawal ab cour constitutionnel la jàppal benn ñaareel bi mooy Sud Quotidien moo ñu koy xamal de nee gis nga naa wàññi li nga xam nii mën la mooy pouvoir boo xam ne procureur daal na koy am fii si réew mi mën la lañ ko wàññi waay yéeg léeg kaamil gis nga gaa dañoo taxawal li nga xam ne moom détention la de waaye jàpp coow li nga xam ne am na si assises yi te kenn mënu see mooy mën la ndax moom président de la république dina teew si li nga xam ne moom mooy conseil supérieur de la magistrature am déet nan nag la kenn mënta déggoo Sud Quotidien nañu kon kay boo bëggee dégg dëgg mën la bal bi fi mu nii mu ngi sa loxoy njiiti réew mi président Bassirou Diomaye Faye moom mi nga xam ni mën na la moom mooy joxe li nga xam ne mi wala ñàkk teewaayu njiitu réew ma la si biir conseil supérieur de la magistrature ma la fii la coow li la gis nga ñoom assisaar yi ma ne la ñii d'accord dama teewaayu président de la république si biir conseil supérieur de la magistrature ma ne la ñeneen ñi d'accord gis nga waxtaan bi nga xam ne gaa ñu tënk nañ ko mooy gis nga pouvoir bi nga xam ne procureur de la république daal na koy am ma la ñu daal koy yemale rek yo retraite ma ne la ñu jugee si waxu assise si beneen sujet rek ak journalu l'observateur yëgle kaay bi ñu xamal ni gis nga bu dee marché eurobond xibaar bu neex la de ab nouvelle bu neex si réew mu Sénégal mën la yëkkale kaay bi dañu xamal nii gis nga lu toll si milliards de francs CFA mën la gars daal lañ koy tibb de sa bitim réew ngir indi ko fii si réew mu Sénégal mën la koppar googee dafay fat waay waay li nga xam ne moom mooy di déficit budgétaire bi nga xam nii mën la réew mu Sénégal amee ko nag si milliards de francs CFA waaye lii lu baax la waay l'observateur dañu gis nga Sénégal inspection du travail ak ay compte bloqué de waaye waaye jàppal ni gis nga presse bii ñu ngi si pression gu taratar ñu ngi si guddi gu bër setagul yoor yoor bi quotidien ne ko gis nga kaay ma wax la gis nga bu fekkee ne mbirum dette fiscale mën na la yenn entreprise de presse yi nga xam dañoo yore bor ci waram fiscal te fayeguñ ko na la gaa yi fi mu jafe-jafe de yëgle kaay bi nañu ma jambal jaañ bu quotidien la de may mën a ndur fay bu i yéegi kaay bàyyi wax de du samay kaddu de yoor yoor bi ñu xamal ni gis nga bu fekkee Madiambal Diagne la mu yoreel li nga xam moo di keesu état bi si mbirum fisc mu ngay tollu si 91 millions de francs CFA bu dee Maïmouna Ndour Faye bu 7TV mën na la 45 millions 360 mille francs CFA yëkkale kaay bi nañu gis nga bu dee D-Média bu Bougane Gueye Dany mu ngay toll nag si ñaari milliards est-ce que loo xam ne dette fiscale la de seetal loolu waaye gis bu 2STV yëkkati na ay kaddu la benn fi mu ne nii ma ngay wax gaa yi pay bor baax na rek nee gis nga yéen ci boppam yéen war a jàng fayee li nga xam ne moo di impôt dee leen pay impôt waay mu mel coow li nga xam ni ak li daal tey patron de presse yi ma ne la moom Macky Sall loxoom génnu si de te luy nji njaag moom Macky Sall moom mooy njaag de waaye dama ndax moom Macky Sall li daal tey patron de presse yi yëpp moo leen ko yóbbee ñàkkum payu impôt bii ma ne ko teg moo tax fi mu yi dañu am jafe-jafe ngir fay impôt bi ndaxte koppar gi ak alal gi quotidien di ñu xamal ni Aïda Mbodj directeur général bu deer man na la fi mu ne ni opération goxi la wax de nee na gis nga mbuxum luubal ak caxat-caxate gi nga xam ne amoon na sa DER <laughs> ay da boo jay wax DG nee na gaa ñi danañ ko goqi de goqi rek goqi ma ne la ak bor nga xam ne dama ne la gaa ñi nañ ko li nga xam ne moo di deer gaa ñi bor bi a nii ku si leboon na waajal say dossier te di nga fay ay daay wax di te gis nga jàppal nii ma ne la du am dérogation de gaa nga xam ne dañoo leboon añ na du fay jàppale di ngeen fay de amul sax dérogation bi woon na lee noppi ñu jeexalee ko ak journal Les Échos yéen a bi di dikk ak ñun si coow li nga xam ne daal nay am si diggante jaraaf Youssou Ndoye ak askanu Lebu yi de ma ne la yëkkale kaam la gis nga coow la bras de fer wakaam ma ne la si mbirum titre foncier coow suuf bi dama ne la man xaw ma kañ lay fin si duwaanu wakaam journal Les Échos ñu gis nga moom jaraaf Youssou Ndoye dama ne la si alxames bi juróom benn fan si weer juin bi ñu nekk de ma Cour suprême si boppam dina wax yëkkale kaam la gis nga moom moo tax fi mu ne nii mu daal di dugal ab appel de waaye gis nga ndi kii ëllëg si alxames bii la cour suprême fas yéene daal di wax waaw waaw ndax coowar suuf ak titre foncier fii si réew mu Sénégal mën na rawatina si diwaan Wakaam mën la si communauté lébu yii dama na dañoo jàpp Kenya baala de ndaxte gis nga manganèse u sénégalais bi mën la fi mu ne nii indi coow ak indien yeeg sénégalais yi de ndax ab benn ingénieur civil mën la boo xam nii dafa am nationalité dañ ko daal di jàpp te ko loxo gis nga boo li ndiki tey jii daañu ko defeere si cool yi de te gis nga moom plaignant bi si boppam moo wax na gars yi dañ koo sàcc nag lu toll si cinq cent trente mille tonnes ci ay manganèse te gis nga boo ko xaymaa cinq cent trente mille tonnes yooyooyee maanaam koppar gi mu ngay toll si dix-neuf milliards huit cent millions francs CFA de lii du koppar gu tuuti de maanaam yëgle kaay nañu gis nga ab exploitation bu jéggi day te doy waar te moo am si diwaanu manganèse maanaam gis nga lii fa muy baax na rek du neex de ñu yendoog jàmm ëllëg allah